tey ñu nekk fii nga xamante ne mooy hippodrome El Hadj Ndiamboukor Diop ñu ngi nii di takk li nga xamante ne mooy plus de trois ans Cheikh nuyu naa la looy nuyu salaamaaleykum mbokki Trifisi salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu si journée bi nga xam ne ñu ngi koy dawal di troisième journée yam ak dimanche le 14 janvier 2024 fii ci hippodrome El Hadj Ndiamboukor Diop di xam ne di leen xamal ni rek ñu ngi dawal li nga xam ne si moo di cinq catégories tey ànd koog Marle Pro fii lay si jaabal kon kon ñu ngi leen ñu ngi ñu ngi leen di wax ni ngeen topp ko fi nga xamante moo di émission Diaba ak Marle Pro. nañ dugg ba ci biir dinañ leen wax yan ak yan ñoo koy daw. ñii ñooy course hippique la bëgg a dégg ñii ñooy course hippique la bëgg ñii ñooy course ñooy course hippique la bëgg a dégg na matuñ yaaya jàmbe ndax jaane ngi fi naa seeti major jaarale si général bëggatuñ football basket te du bëre bàyyi nañ lépp léegi topp naaru góor bañu daaw neel macha allah xam ngeen duma yéen kon ne leen kaan ñu rafet njort jot aminu uma toi et moi yéen a rasul medina barke ñëpp ne laaw la cat jàmbaaru taal bu yàlla taal ci réew mi maaraadu ma xafaal te wóor na àdduna béti baawoo doy lu leer na diaspora même weeru koor sax damay seetaan dalin moom bis bu rawee ne xel dem si pesantor Sénégal baba deray der wane ko seen TV yokku na rythme am satu der la al bu rax di bàkka tari yaaba fàttali ma am na deux ans arif ak yaaba course hippique sama kona niga ñii ñooy course hippique la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg dégg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg daa mel ni baax na ñoom ñëpp jóg nañu jóg nañu waaye ndaje moom moo jógul ñoom ñëpp jóganoon nañu lii la amateur yëpp yàkkamti woon fas wi nga xamante ni moo génn si kanam moom mooy Linguère Ngoné Dieye deuxième position yëgul buur moo fa ne troisième position xare gars yi si des na dañuy ràmmal rek ndax 1650 mètres la ñuy daw koso peex Linguère gars yi ngi ba léegi Linguère Ngoné Dieye moo nekk ci kanam ba gis na en deuxième position yëgul buur waaye gis naa fas wu mel ne taaliba nekk saaw gis na xare xare dal na ci kaw nag yëgul buur ci kër Linguère Ngoné Dieye na ci kanam ba léegi léegi ci kanam euh, Las Palmas. ko so ba léegi nga xamanteni ne si genn moo moy moom xare ñaari dimanche yi passé yépp moom mo leen rawoon wante li ngeen jey ñoo na si ko am ne ko li ngay def lu xare waxi li ngeen ngoone jey sulko. ko lu li ngeen ngoone jey waxi yegul bur suul ko ramum ñay njiitum ngolo malaanu jama job kabaarul ci fi nga xamanteni ni moy mooy ci fi ko so li ngeen ngoone jëy génnaan na lu li ngeen ngoone jey gennan na mi ngi jugee ci écrit bu mag bo nga mooy écrit professeur en deuxième position euh, xaaree en troisième position yëgul buur ba léegi ñu ngi noonu génn wax nga ko ñoo ngi leen di romb tournalu Kosopeex. waaw professeur Sakhir Thiam bi wuti fi nga xam ne mooy tournalu Kosopeex borom peex li ngeen ngoone jëy moo génn doomu Texas Range la Texas Range biir si Range daan taayam daan xil daan sig noson daan yëgul buur ñëw si kawam doomu Daram Sarr la Mamad doomu Kéba Dieye moo ko war waaye li ngeen ngoone jëy génnan na na li ngeen ngoone jëy moo position ki nga xamante ne si moo di yëgul buur moo ne deuxième position Linguère Ngoné Dieye moo nekk si kanam Koso Père. Linguère Ngoné Dieye moo nekk si kanam en deuxième position yëgul buur Linguère Ngoné Dieye ba léegi moo nekk si kanam Las Palmas. wayul fay waaye ba léegi nga xamante ne moo koy dàq moom mooy yëgul buur jóge équipe bi nga xamante ne mooy Siid Ndaw bu Thiès bu rawee dina fi def loo xamante ni kenn dootu ko fàtte parce que moom Thiès gii la jógee. ñu indi ko Thiès mu nar a delloo buum sa mbooy mbëgga waaye ba léegi li ngeen ngoon a jëy moo génn ba léegi li ngeen ngoon a jëy moo génn yëgul buur moo ne deuxième position ñu ngi noonu ci deux ñoo noonu ci deux cent mètres bi bu ñu ñëwee dañuy téye li ngeen ngoon a jëy yëgul buur li ngeen ngoon a jëy yëgul buur li ngeen li ngeen ngoon a jëy li ngeen ngoon a jëy yëgul buur attention attention attention kon ñuy bàyyi loolu waa ñuy bàyyi loolu si si attention Las Palmas rawatina daanu noonu ci tableau bi. waaw waaw diggante Linguère Ngoné Dieye ak Yeumbeul Mbour. kenn xamul ku raw kenn xamul ku raw. waaw waaw waaye waaye gis na lii moom ak ci rawat. waaw fas yi nga xamante mooy Yeumbeul Mbour wax nga ko sànq. waaw nee nga distance bi raw na ci. te daa mën a daw tey mu ñëw mu ñëw mu ñëw am lii daanu noonu fii ci tableau bi. daa mën a daw xaaral attention les gis. boo ci gën a problème sax jàpp tey lan la ñëwee. waaye gën a yëg même gën a seen ndaw ñoom ñoom instant bi 2 minutes 19 secondes. Bonjour, Bonjour comment tu vas ben, Je vais très bien. Quand on vient au Sénégal, on est toujours bien. Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes en France ou ah Non, je suis belge. Belge Belge, oui. Tu es venu au Sénégal, tu es vu les courses euh, le euh, non. C'est quoi Mais je m'occupe de chevaux de, chez Mapsec pour les jumping. Papsec, l'équitation. Voilà, l'équitation, jumping, oui. Vous venez ici pour l'équitation Voilà, oui. C'est pas qui, fait les formations au Oui, oui, je sais, c'est bien. Comment tu as vu les pleins de 3 ans qui courent tout de suite là Il y a des, bons chevaux et des bons jockeys. Hein. Tu as vu le Sénégal Le course Sénégal est là. Hein? Ouais, c'est excellent. Bah, il y, y, a du sport ici. Hein. Il y a du sport. Merci, Dieu. tey ñi ngi dawal li nga xamante ni mooy troisième journée wax naa ni bin dawalee li nga xamante ni mooy suñ deux dernières journées yin dawal kala fekk na classification chevaux yi daawul génnagul woon tey ñu ñu ñëwaat dawal suñ deuxième journée ñu omaga omal léegi course bi génne euh, classification yi ak troisième journée tey bi ngeen defee classification yi nan ngeen jàngatee fas yi ak ni ngeen ngeen gisee euh, fas yi ak ban nan ngeen defee classification waaw koso xanaa di la remercier rek Euh, di wax ne classification bi mom euh, wàllu élevage la c'est de leur responsabilité man dama ci bay sama war rek damay suivre fas yi euh, au cours de la saison pour mën aider un peu propriétaires ak jockey yi boo xamee ni classification bi xawna tardé wala yoy wala ñu am information yu ñu ma ci laaj ma ci gindi manam mais buñu xolé classification bi globalement gis nañu ni am nañu ay catégories yo xamni ay catégories yu intéressant la catégorie groupe 2 bi boko xolé danaka rek da nga nan sax groupe 1 la waaw parce que foo lugaloo loo nekk expert nekk fa Dieyna nekk fa Alpha nekk fa ak yeneen i fas rek xam nga ni groupe boobu am na niveau bu relevé daanaka day jege rek niveau groupe 1 bi. groupe 1 bi également am nañ fa fas yu bëri daanaka on a 27 chevaux yu fa nekk mu di record boo xam ne mosuñu ko mosuñu fa yegg ñu am autant de chevaux ci groupe boobu ba pare fas fa am yëpp daanaka kenn ku ne raw na mu nar a nekk vraiment catégorie bu serré également. Euh, boo demee ci groupe 3 bi foofu xëy na moom mooy xaw gën a yamamaay ndax fas yi nga xam ne ay notes rek lañ am ñoom ñoo fa nekk. ak ñi ñu tuddee ay zéro kilomètre ak ñi nga xam ne ñoo jógee ci bee bi wàcc foofu daal xëy na groupe boobu mën na gën a sedd ci groupe yi mais bu weesee groupe boobu yeneen groupe yëpp dañuy nekk ay groupe yu équilibré yoo xam ne vraiment euh, jàpp naa ne bu kenn rawee tey dimanche ba ci topp beneen moromam mën na raw

donc même suivi bi nañuy def bon xeyna euh, différence yi dal du bëre bu amé ben fas wala ñaar dal te man sax bima ko gëstoo ben fas rek la ci sétlu bo xamni nek nañ sama classification te nekkul ci bu élevage muy jamono bi nga xamni 1000 francs mom moko tax wacc bu amone 1000 francs de plus rek yëkkoon na groupe 1 à part ça amul benen différence daanaka yëpp ben la dal manam élevage taxaw na ci taxawaay bam solo. si si taxaw nañ taxawaay bam solo xana di leen euh, demander rek bu beneen ñu gën ci mu a bon on peut comprendre euh, tous les problèmes qu'on a eu le contrôle antidopage bi ça se comprend mais on a les moyens de faire sortir la classification une semaine après la euh, fin de la saison. ndax daanan gis ay classification yu ñu génne tey Alla Diagne leeral na ko wax na ci fële classification yi wax na ci chevaux yi wax na ci groupe par groupe kon lii rek lañ doon xaar wax naa leen lu bëgg a leer sa jaabal quand toujours sa Diabal quand c'est sérieux c'est Babacar Mar kon ne ñëpp di seetaan Diabal waaye lépp leer na ci classification bi ñu ñaanal bu baax actuellement le la président Lamine Diop yàlla ko yàlla defal jàmm en bon entendeur

presse Albouri ñëw na ak El Gassal tërëf na presse Albouri tërëf na amaat na bon départ waaye El Gala El ba léegi moo nekk ci kanam El Gassal nag mi ngi jóge ci écurie Ndiouk. jërëjëf Dia ki nga xamante ne mooy Koso. tourné nañ fi nga xamante ni mooy tournalu Koso Peex borom Peex jàkkaarloo Kër Mbaye Diouf lu El Gazal waxi Prince Albouri suul lu Prince Albouri waxi bien César suul ko gars si des nag ñu ngi ràmmal rek di ñëw El Gazal ba léegi moom moo génn première journée moo leen rawoon jóge écurie Ndiouk deuxième position nga xamante ni moo ne moom mooy Prince Albouri bi Jibi Ndiaye Koso Peex. Prince Albouri bi Jibi Ndiaye moo fa nekk Prince mooy Prince Albouri waaw waaye la. laa ilaha illallah waaye ba léegi El Gazal moo génn beneen mu bi nag ñetti fas ñoo nekk foofu benn fas waaye ba léegi nga xamante ni si moo génn moom mooy Prince Arbouri nekk doom ka moo génn moom mooy moom mooy façon am mooy El Gazal El Gazal nag doomu bulu jamono la deuxième position laa ilaha illallah deux cent mètres dina métti ko sa peex Prince Arbouri ñëwaat na deux cent mètres dina El Gazal raw na première deuxième position Prince Arbouri ah troisième numéro 3 Misaan kilifa yi ñu wóolu doyloo ñu ba dénk ñu course hippique yi vraiment sentiment de mbégte la ñu am tey ci organisation bi di gërëm également nag ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal parce que équipe bi ñu booleel équipe la boo xam ne équipe bu xarañ la bu mën li ñuy def fas yéene ànd ak ñu vraiment pour la réussite de li nga xam moom la ñu dégg donc tey comité d'organisation ñoo organisé wax dëgg yàlla kët bëgg nañ ci organisation bi jaar na yoon c'est un début nag yi ci des xëj na suñ kanam suñuy continuer dañ leen mën a gën a fi ñu jëm mais yàlla def naa équipe bi ñu àndal moom équipe bu xarañ la boo xam ne je pense que bu ngeen ñu ñëpp bokkee jàppale ñu yóbbu course yi foo xam ne dana raw njort yu bari. ginnaaw bi décret bi génnee nga xam ne yow yaay président CNG course hippique euh, ñu gis ni euh, course bari nga ci njaboot. préparateur yi entraîneur yi jockey yi bo amone appel bo len di lancer tay ji lan la. waaw li ma daan faral di wax rek bala sax faral di ñew mooy ñu ñëpp ñu and boku nday boku bay pour défar li nga xamné ni mom lañu am muy course épique donc ma ngi invité ñëpp acteur yëpp mo supporter jockey entraîneur amateur ñëpp ñu and ñu unir ñu nekk ben fas yéene liggéey pour l'intérêt général des courses ñu ngi nak gëreum profiter ci occasion aussi. di gërëm suñu prédécesseur muy le président sortant Cheikh jaan Niang ci liggéey bu rafet bi mu def ci course wax dëgg yàlla am na fu mu ko jëlee indi na ko ba mu egsi fii mu nekk tey ba ñëpp nangu ne course jox na ay jéego yu kabaree bari ñu ne dañu ñëw rek fekk fi mu taxawoon ñu dem fa teg suñu tànk pour compter yokkaat ci leneen. maa ngi leen di euh, nuyu euh, di rafetlu seen euh, question bi mu nekk loo xam ne kontaan rek laa si am. maanaam ah, suñu xarit di éleveur bu mag la ñu tab pour ah, jiite le CNG jiite ko ci ginnaaw ku fi nekkoon aussi ma koy nuyu di ko xam ne suñu mag la woon suñu pap la woon ah, gis ngeen fu mu yóbbu change am na changement yu bari yu fi nag ñi koy ñaanal di ñaanal ku ñu tab wax naa la ko ma ne ku ma xam la muy éleveur bu mag ma félicité féliciter parce que jiite course wax na ko léegi la da am qualité ko si si côté may euh, aussi sama sama directeur des activités physiques jóge ministère des sports li am li ministère des sports mooy tutelu administrative u abruya wakan daya maktar ni paru paral nguraan uuf na njaboot gi jambar lagi lagi jambar joni jani jambar saa yu xarab mette ay jambar sam xel dootul toog jambar nday ja makudom ma kub doom baay drapeau bi rouge jóg na ndeysaan maa ngi leen sama xarit ma jóg gaa yi jóg nañu gaa yi jóg nañu gaa yi jóg nañu koso peex gaa yi jóg nañu gaa yi jóg nañu jóg nañu Cheikh Wade ñoom ñëpp jógoonoo nañu maga neex moom lan door mu génn si kanam deuxième position nga xam ne moo fa ne moom Mansour Fall troisième position numéro 3 nekk Disa gaa yi des nag dañuy ràmmal rek ndax 2200 mètres la ñuy daw euh, Cheikh Cheikh Wade Las Palmas ki nga xamante si moo génn mooy Maga Neex moo ne première position ki ne deuxième position nekkaan si moo di Dija troisième position di ki nga xamante ne Dija moo génn ba professeur Sakhir Thiam doomu Khadija la moom tamit moo ngi noonu ci kanam ba léegi. jërëjëf Koso Dija remplacé na leen moo génn. ki nga xamante ni moom mooy yaayam mooy la grande royale moom nag London si mooy baayam London si Muxtatir mooy baayam deuxième position Maga Neex ànd ak Mansour Fall Maga Neex nag mooy rakku sara otom Pantagriel la Pantagriel peintre célèbre mooy baayam Mansour Fall parati mooy baayam mbokku baayu perlifin bu Idrissa Ñaa parati mag fi du baayu du baay miliñam sa kin sa goldu gaaj des nag dañuy ram rek ku sa peex dañuy ram rek Las Palmas li wax am na solo waaye en deuxième position gis naa Assirou mu ñëw mu ñëw en deuxième position rawante bi metti nañ waaye léegi ba léegi disa mi ngi ci kanam waaw ba léegi a moo ci kanam deuxième position nekk ci diggante ki nga xamante ne si moo di Mansour Fall ak Maga Neex troisième position Assirou mooy noonu ñëw troisième position moo nekk quatrième position waaye deuxième position nekk première position ki nga xamante ne si moo di dèjà moo fa ne ba léegi ñu ngi noonu di agsi bu ñu ñëwee dañuy delluwaat. jërëjëf ñu ngi nii dañu romb fi nga xam ne mooy Sen TV waaye dañuy romb dellu. ba léegi Diza moo génn Diza nag setu Moraes la Moraes Kaldun Neves Kaldun Karo Fortino deuxième position ki nga xamante ne si moo wane moom mooy Maganeex tourné nañ tournalu professeur Sakhir Thiam tourné wuti tournalu kosa peex borom peex lu Diza waxi Maganeex suul ko lu Maganeex waxi Mansour Fall suul ko lu Mansour Fall waxi Elisio sul ko ci aras bi waaye daal Elisio dawal nan ko dawal nan tonto Basiru ñoom ñëpp dawal nanu waaye ba léegi Disa moo génn ba léegi Disa moo génn dawal nañ Elisio mu jege si moo ne à troisième position Elisso jege si na position ki moo Diza moo ci kanam ba léegi waaye dàq nañ Elisso Elisso Elisso ba léegi Elisso Elisso ñëw ci kanam Elisso jàpp na Diza ñu ngi noonu di ñëw ci tournoi basket bi Elisso moo ne première position la actuellement. Elisso moo génn mbako baayu El Capo bu Omar Bawa Junior Elisso Honor Nbilis mooy baayam mbako baayu Big Big Boss bu Hassan Azar mbako baayu Deka bu Moustapha Bawa moo honor and bliss mooy baayam ije sonor ken mar kalamun sedan mu ngi nii kabar wusin bu ñëwee dañuy téye élision xàcc la disa xàcc la Mansour Fall nekk jàkkeer doot Dakar waaye écrit réew ñoo ne ci kanam nekk deuxième position wante doomu Keba ji animateur mooy leen dara moo ñëw élision moo nekk noonu moo ne moo jël première bi signé li nga xam ne moo di première victoire am deuxième di disa troisième nekk yaa xamante ne si moo di Mansour Fall non lañ dawé ba tee daw nañu ba tee nga xamante mom mo raw mom moy Elisio Elisio nak pass la nga xamante daw def na fi ay performance am yoo fi ni moy daw sax man nañ ni tolof tolof mais du place am comme ni dal expert comptable rek moko dal mo raw première mu nek ko xamante Honor and bliss en tant que euh, deuxième euh, vice-président CNG nga xamni décret bi ñu génnee yow yaay deuxième vice-président bi ban euh, jangat nga am ci lool ak ban yëg-yëg nga am ci wa mais taxaw ci liñ daan taxawé depuis toujours xar suñu tànk tubéy pour que course Sénégal mën a mériter comparaison bi ak li nga xamni ñu koy def au Maghreb

marché ba am xol yëpp bay neex yàkkam ci heure bi jot ba ñëpp dem seetaane waaye nag gis nga sama morceau bi nag ma bindal sama papa ji nga xam ne lu ma nekk mu nete ku ko laal laal ma bu dimanche ba am xol yëpp bay neex yàkkam ci heure bu jot ba ñëpp dem seetaane toroxal fas pour revendiquer taxaw ni la jàkk mul dem wàccoogal li ngay wute nga ci fas bu dimanche ba course am xool yëpp fay neex yàkkam ci heure bi jot ba ñëpp dem waay waay lamba li fas taxu la fas a raw raw nga ca kanam bu la seenu ca ginnaaw mu ca xala des yaa nga ca kanam bàcc bu dimanche ba course am xool yëpp fay neex yàkkam ci heure bu jot ba ñëpp dem seetaan jiitu nga leen sànni karawaas daan nga leen jël bu dootul même ba mu bàcc nga bu dimanche ba course ci heure bi jot ba ñëpp dem seetaane bu ragal dara ma ci jóg bu ragal dara waaye sa kalsaarax wante ci sa bopp sa yaaye lii bu dimanche ba course am course naaru góor yi mu dàq naaru góor nekk course boo xam te dañoo bari la parce que tamit euh, Moulay aussi moom it neex kaay cap ni ku si mel ne Laurado dafa kenn mais moom tamit dañ ko bàyyi xel bu baax a baax Jeyna ak Alpha Ndiaye am Ngoone Ndaw écurie di Ndaw lañ jóge mu nekk tamit ay fas yoo xamante ni fas yi war a bàyyi xel gars yi jekk nañu raw na fi Alpha Ndiaye tamit aussi raw na Alpha Ndiaye nag nekk fas yoo xam ne dëgg resti cent bi rek dafa garaaw gars jekk nañu ñi ngi rang Baye Cheikh groupe 2 jockey principal bi waaye daal fas yaa ngi noonu 16 partants wala ci distance su 2200 mètres léegi ñu jekk ñi ngi rang 17 partants la 16 partants kan mooy raw waaye ki nga xamante ne si moo di gan di expert comptable Not Anatolu mooy deuxième année boo xam ne mi ngi soog a daw ci waaye expert comptable di ndaanaan boo xamante ci biir ndaanaan yi ko classé ndax dawandoo ki nga xamante ne ci moo yi wante bi ne expert na loolu am lu ñu jàpp koy bàyyi ñu daan si comptable expert ñëw gaa yu jóge fu ne ñuy jóge Dakar ba xam nag fi nga doon xaar dana fa gëm déet ñuy jóge Thiès ñuy jóge Louga Tivaouane ñuy jóge Ngaye ñuy jóge Ndar ñuy jóge Ngaye Mekhe waaye ñuy fi nga xamante ca dëgg-dëgg mooy tëng SPL bu Kafulo siaman force la pat bu el force SRP ken redam som Roberto mbokku baay lat Fatim Anta Ndiaye ba war baaw siñor mbokku baay ndam li professeur Sakhir Thiam yaam nekk kumis jaw nekk doomu Karuza Karuza Garuda Garuda dan xel danseur dan xel danseur danzig danzig ndoson danseur ay fer be fekk ay ndaanaan tey waaye waaye tamit mu nekk loo xamante ni parce que numéro 3 bi di jamono jóge egir réew ni tey dama gis benn xale bi jigéen indi ko ñu naan ko Aram Sarr loolu nga am ci jamonoy Khadija Combal lañ ko gëj a gis. la waaye mu mel ni na gaa yee jóg nañu gaa yee jóg nañu départ ba jóg na gaa yee jóg nañu gaa yee jóg nañu ñoom ñëpp mu laay leen door mu génn si kanam ah waaye nga xamante ne si moom mooy duma yéen nee ko nan troisième position Ngoné Ndaw moo fa ne wante je passe bien ki nga xamante ni moo jugul moom mooy Alpha Ndiaye je passe bien ou bien Jeyna moom moo jugul waaye ki nga xamante ni moo génn nag ah, moom mooy Moulay def joxe ñaari lëngër def rambum ñay rek Cheikh Wade. waaw Moulay moo génn deuxième position nekk ki nga xamante ni si moo di Duma Yeen Duma Yeen moo ne deuxième position première position nekk ki nga xamante ni si moo di Moulay ñu ngi noonu. ñu ngi noonu di di am di am 1000 ñu ngi noonu jëm ci turnaalu basket bi mu laay génn duma yéen duma yéen ñëw na dàq nañu duma yéen mu ñëw ci kanam Las Palmas. dàq nañu duma yéen mu ñëw ci kanam en deuxième position mu laay ba léegi duma yéen mi ngi ci kanam duma yéen nag mën na 2200 mètres yàgg na koo def ba gën en deuxième position mu laay moo fa nekk. fas yi dañuy rawante tey gis naa ni bu duma yéen génnee rek mu laay day ñëw ni koon nañ dem. Moulay génnaat du ma leen remplacé ko waaye ñoom ñëpp nag Laf Cat remplacé na leen Laf Cat nag moom moo génn ci kanam Laf Cat moo génn moom doomu Kik Sarr la maañ la Panouriev Nozon danseur deuxième position Moulay troisième position du ma leen wante maay seen expert comptable teel naa ñëw dëggal boppam ram ñay jutum golo balaa nu jaama Diop lu nga xamante ni mooy Laf Cat wàqi Moulay suul ko lu Moulay wàqi du ma leen suul ko waaye expert comptable mu ngi daw ci arage bi ba léegi nga xamante ni moo génn moom mooy laf cat Cheikh Wade laf cat moo génn ba léegi waaye mu laay bàyyi ko mayu ko dara troisième position nekk nga xamante ne si moo di duma yéen ñu ngi noonu toog ci tournoi le professeur Sakhir Thiam bi gars yi ñu ngi def benn bolok ndeysaan di njàpp njàpp bu neex waaye ba tey nga xamante ne si moo di mu laay moo génn duma yéen mi ngi noonu mi ngi noonu dal ci kawam duma yéen mu laay duma yéen mu laay lafcat moo ne troisième position duma yéen ak mu laay ànd nañ doon benn fas Las Palmas. waaw duma yéen ñëw na ci kaw mu laay ni ko yokkali ngay def wante mu laay bañ na mu laay Lonrense mooy baayam duma yéen Descargo Park mooy baayam dawal na ki nga xamante ni moom mooy Laurado dawal nañu jamono dawal nañu Laurado dawal nañu jamono wante ba léegi mu laay moo génn ah Laurado génn na doomu soleil de minuit la John Kwasa de Joel nos danseur deuxième position Moulay attention Doumbéyeen attention jamono attention Omar Bawo laa ilaha illallah wante ki nga xamante ni ba léegi moo génn moom mooy Laurado Cheikh Wade. Laurado moo génn deuxième position Moulay attention Louga Lo mi ngi doon di ñëw di dal seen kaw waaye ba tey Laurado moo nekk ci kanam mi ngi doon ci 200 mètres yi bu ñëwee day téye Laurado premier participation mi ngi doon di ñëw fa yéene si li nga xam victoire am Laurado mi ngi noon di ñëw mi ngi noon di ñëw bu ñëwee day tee doomu Soleil de Mindelo la ndeysaan Laurado première quatrième numéro 4 di Moulay troisième nekk numéro 3 di jamono quatrième nekk gàllaaj quatrième nekk gàllaaj waaw noonu la ñu dawee ba tee ñii ñooy course hippique la ñu bëgg dëgg ñii ñooy course la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg ñii dëgg na matuñ yaaya jàmbe ndax jaane ngi fi naa seeti major jaarale si général bëggatuñ football basket te du bëre dóor bàyyi nañ lépp léegi topp naaru góor bañi daaw neel macha allah xam ngeen ne duma yéen kon ne leen kaar ñu rafet njort jot aminu uma toi et nañ yéen a rasul dolli Medina barke ñëpp ne laaw la cat jàmbaaru taal bu yàlla taal si réew mi maaraadu ma xafaal te wóor na àdduna béti baawoo doy leer na diaspora même weeru koor sax damay seetaan dalin moom bis bu rawee ne xel dem si pesantor Sénégal baba deeray der wane ko seen TV yokku na rythme am satu der la alburax di baka tari yaaba ma année deux ans yaaba course hippique sama kona nigga ñii ñooy course hippique la ñu bëgg ñii ñooy course hippique la ñu bëgg wuti box ya lamp yi i yi di a nee naa la ñoom ñëpp ñu ngi noonu ci biir box bi numéro un mooy ndam li jóg nanu jóg nanu jóg nanu naaru góor yi jóg nanu lii la amateur yëpp yaakamti woon dernière course bi tey ko dom pot du ko yëg dorom baa leen tiim wante law dafa dina mani nam law dafa dina mani nam deuxième position Lat Fatim troisième position Linguère Tening quatrième position Moubarak cinquième position Diofior moo wante Abdourahim momo jital fasi fas yi Cheikh Wade. waaw laaw moo génn moo jëkk première position deuxième position nek nga xamné modi Lat Fatim troisième position nek nga xamante ne si moo linger Linguère ni ngi noonu di sogo tourner tourné tournal professeur Sakhir tiambi ni ñu ngi noonu di ñew law mo ne première position Kosopeex. La Monique première position en deuxième euh, pour trois deuxième position Lat Fatim Anta en troisième position l'ingertining, la Law ouais la Lat Fatim ñëw na en deuxième position en deuxième position Cheikh Wade. jërëjëf Koso Père la moo génn doomu Cibotin la deuxième position Lat Fatim doomu Siaman Force la troisième position l'ingertining, ah oui l'Ingertening Tening nek troisième position mon doomu Warxos la gars yi dañuy ràmmal rek ndax 2200 mètres l'année ñuy daw. Onde Law ak Lat Fatim joxe nañ 25 mètres la Cheikh Wade. Law moo génn ànd ak ki nga xamante ne moo di Lat Fatim Anta Ndiaye ñi ngi noonu di ñëw tolloog tournant 200 mètres bi ñi ngi noonu di ñëw ànd doon benn fas. troisième position nekk nga moo di Linguère te ñi ngi noonu di ñëw bu dañuy dellu ko sa peex. laaw moo génn ba léegi en deuxième position Lat Fatim laaw Lat Fatim. laaw boo tey moo génn ba tey moo génn waaye Lat Fatim bàyyiwu ko troisième position nekk nga xam ne di Tawfekh ñu ngi noonu di tolloog tournal professeur Sakhir Thiam la ñu doon toll pour trois professeurs Sakhir Thiam bi la toll ma. fas yi tey dañoo saaw waaye nga xamante ni moo jiital fas yi mooy Kasumay 2 wante laaw moo génn joxe na 5 mètres deuxième position waaye dawal nañu tawfeex dawal nañu tawfeex dawal nañu Mubarak wante ba léegi laaw moo génn tawfeex ñëw na seen kaw di daw lu bari wante laaw ba léegi moo génn. laa ilaaha illallah. tawfeex mi ngi ñëw dàq nañu tawfeex. ndax nañ taw feex mi ngi noonu dal ci kaw ki moo di laaw ñu ngi noonu di tolloog tournalu basket bi ndeysaan sama na ndeysaan sama yaram daw na taw feex génn na borom grand prix chef de l'état taw feex génn na Las Palmas borom grand prix chef de l'état taw feex moo génn borom grand prix chef de l'état taw feex moo nekk ci kanam laa ilaha illallah doomu ak tensinos loola mbokku baayu Dardas la Omar Ba wa Senior moo ko ba dongo ne Malem borom Seck jaayuna ñu ngi neetu na ci 200 mètres bi bu ñëwee na dañuy té konté ba légui taw bi moo génn seen waat. ndeysaan sama yaram taw na sant sama yaram taw na Helsinki xanaa war naa kontaan jaabal lag lay top ndaysan taw feex a ngi di ñëw taw feex a ngi di ñëw ndaysan taw feex a ngi di ñëw di signé nga xam modi premier bi premier taw feex deuxième. nekk ki nga xam ne moo di Laaw troisième Moubarak quatrième nekk ndam li cinquième nekk ki nga xam ne moo di Abdourahim sixième la nekk Linguère Maguette